je dis aujourd'hui notre objectif c'est quoi et la vérité c'est quoi c'est que la vérité normalement aujourd'hui le prochain président du Sénégal doit sortir de Yewwi Askan Wi tous les chiffres là disent la même chose dernière élection ça dit la même chose la question à partir de ce moment là mooy comment on fait pour que nos candidats là puissent passer à l'élection vous n'êtes pas majoritaire ah si on est majoritaire vous n'êtes pas majoritaire ok locales yi. Mm -hmm. vous avez remporté les grandes villes. Mhm. mais de manière arithmétique. Mhm. vous n'êtes pas majoritaire. ci législative yi. Mhm. y plus de cinq cent mille voix de différence. entre, entre Benno Bokk Yaakaar. ak yeewi askan wi. ndax chiffre say conseil chiffre baaxul. man man samay chiffre baaxul. non non say chiffre baaxul. man samay chiffre vous n'êtes pas majoritaire. moi de yeewi askan je parle pas de l'opposition. non non non non non cest dire non. non non non attendez non attends aujourd'hui boo demee ci élection yi aux dernières élections l'opposition est majoritaire. non l'opposition est majoritaire. Euh, le, oui moom l'opposition bu ñu ko dajalee lépp. oui oui mais je parle de Yewwi Askan Wi. da nga ne le prochain président doit venir de Yewwi Askan Wi. tous les chiffres le montrent. j'explique aux dernières élections Macky Sall avait combien Wade am ñaata. Euh, ban ci euh, présidentielle 2012 oui bu ñuy falwaat euh, Macky Sall premier tour 26 pour cent deuxième tour 65 pour cent Ablaye Wade premier tour 35 pour cent exactement c'est comme ça que ça se calcule c'est-à-dire quand booy dem élection boo xamante ne da ngay am élection à deux tours ni ngay calculer kiy jàll mooy da ngay seet kan moo mën a raw au premier tour et kan moo mën a raw au deuxième tour c'est comme ça qu'on le calcule boo jëlee loolu yeewu askan wi mooy génn premier tour comme ni Macky Sall amee woon vingt cinq pour cent élection. waaw loolu moom loolu moom je suis d'accord c'est ça le le le le calcul c'est-à-dire y a c'est des bu nekk type d'élection bu nekk dafa am. Euh, technique bu ñuy analyser effectivement naka lañ koy def bu élection proportionnelle. bu Karim Wade bokkul élection à à à truc. bu Karim Wade xam nga inconnu la. Ah. xam nga loolu si. bu Idrissa Seck deful <laughs> bu fekkente ne loolu la. Mm-hmm. Euh, bu dee kii deful lii kii deful lii avec ça on peut construire effectivement tout le monde mais boo tax ma ne la lii génn nii élection yi chiffres yi ñu am tous les chiffres y compris les derniers sondages yi ñu am yépp le dernier président le prochain président du Sénégal doit sortir.